mu jaar ci sëriñ Mamor mii nga xam ne day mbokkam di wëllëreem ci liggéey bi di taalibeem ngir jëmmi sëriñ Touba sëriñ bi nim ko baaxoo waxe rek ànd ak bokkam yëpp ci liggéey bi bokk yëpp ànd yéene ko ci ndam ba kenn ku nekk wet ga nga féete nga defa taxaw taxawaay bu rafet bu matale ba waxtu wu nekk sëriñ bi di wax xelam mu dal ak mbégteem ndax ni bokk yi ànd ak moom liggéey bi àndin bu matal sëkk bu rafet lool ànd ak Pastef moo tax bokkam yi itam kenn ku ci nekk am na liggéey boo xam ne dala ko féetale ci liggéey bi liggéey boobee bu ci jubloo daf lay sant nga taxawee liggéey booba loolu bu li bëgg a wax mooy sëriñ Mamour mii waxoon nañ ko ci ay wax yu waxoon ci ginnaaw bi ñuy bañ kuy waxal sëñ bi wax joo xam ne jógewul ci sëriñ bi ñu xamle woon sëriñ bi day leen lu nekk am na ku koy wax loo di ko liggéeyloo ca loola waaye lépp loo xam ne jëm na ci am njàng mu mel ne njàngum alxuraan ak xasida sëriñ Mamoor mii moom sëriñ Fàllu lu moom la koy taxawloo waxtu wu ne itam sëriñ Mamoor liggéey boobu mu di ko ànd ak bokk yi àndin waafet nekk mooy waa raabitatul madaari alxuraaniya bi ci dëkk bi te sëriñ bi ko sëriñ Basiru sëriñ Fàllu jiitee ci dëkk bi sëriñ ànd ko sëriñ Basiirum sëñ Abibu sëriñ Xaali Jaxate mii ànd ak ñoom liggéey booba ba tax lépp lu ci sëriñ Muntaxa defaloo sëriñ Mamoor sëriñ Mamoor sëriñ Xaali mii la koy àndal nekkoon noonu itam daayiratul Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne sëriñ bi def leen di liggéeyloo ci jumaa ji ak lu ci aju muy mbirum diine rek mbirum diine bu ñu ko waxee kon baqeer ci bokk wala armeel yëpp bokk ci ak jumaa yi ci dëkk bi yëpp waxoon na ne bëgguñu boole seen bopp ñu tënku ci benn tënk te boobaa itam ba mu xaram xidma la waxoon ñu leen soññi ñu ànd nas ba waaye loolu lépp ngir bañ a guddal ci gàttal sëriñ Maamoor mii la sëñ bi yónni bëgg lam ko daan yónni ci soññee buñ jàngawaat alxuraan ñu jot liwaat ko bëgg ñu defaat njàng mooma loolu nag sëriñ Mamour mooy leeral nag ko sëriñ bi waxee ak na ko sëriñ bi bëggee ak na mu bëgg mu tëddi ba mu demee na mu daan demee te na mu daan demee mooy amin wu rafet wu sell wu matale woo xam ne la ci war lépp ci taxawaay danañ ko ci def moom ñii ma ko àndal nii ma ko waxee la ci war ci ay pas-pas yëpp pas-pas yëpp ñu daan ko def la ci ñaan war ci ay ñaan yëpp ñu daan ko def ba tax luñ ca masa a rafetees na ci njort ndax lu ca bari dañ ko daal di gis ci saas lu mel ne yàgg nañoo baaxoo mu gëj a taw mel ne dañuy soxlam ndox ñu njàngim alxuraan mi fas ci ñaan balaa yàgg ñu gisub taw ci loolu lan mën a gëmee ne leneen lañ ci ñaanit noone lay nangoo ni ni taw ba nangoo kon loolu ak xel mu dal ak rafet njort ak sant yàlla rek lañ see mën a boole kon ñu jox sëriñ Mamoor mu jottali yónneenu sëriñ bi lu mu ci jot lawaat kenn ci bokkam yi ñu bokkal ñu bokkal liggéey biir kooku la la mu ci war a jot lu mu jotali ko bañ nase ko nañ ko daan dese ba tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim jeexale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi waxdahu wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baadahu wa akbaru ridwaani min allahi taala ala abdillahi wa xadimi rasulihi maulana cheikhul xadim bokki jullit yi fi teew yépp bokki taalibe yi noo leen di nuyu maag sama bokk yu baax yi ma àndal te yàgg koo ànd ak ñoom te ñi ci jiitu di ñii fi Cheikh taxa yabal ñu ànd koog nun muy sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Abdou ak sëñ Xaadim Diop mii nekk ci kër gi ak ñi nga xam ñoom ñoom lañ ko daa àndal te wax gàttu waxtu bi te ak seenu génn tax fekki ko muy sëñ taxa Mbàkke moom sëñ Mamour Pakala ak sëñ Cheikh Mbàkke doomam ñoom ñu ñu boole doon ci liggéey bi ànd ko tam ak ñi ñu ko daan àndal naka jekk muy ñi suñ kilifa yu baax yi nga xam ñooy jiite rabitatul madaris alquraan yi fii Touba sëriñ Basiiru Mbàkke mu sëriñ Fàllilu sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëñ